manifesté nga ko ginnaaw bi ñu sababloo def émission bi di SOS santé ak yow. waaw maa ngi euh, profité ci occasion bi nuyu sa auditeurs yëpp. Mm-hmm. Euh, di rafetlu aussi euh, seen émission ak sa jataay. Mm-hmm. bu ma disponibilité bu ma disponible dafa ma war parce que yéen itam defu leen ko pour seen bopp mais dañ ko def pour askan wi mm-hmm. te askan wi moom lépp war nañ ko jaral pour que ñu mën a gindeeku ci domaine bi nga xam ne ci la ñu yëngatu maanaam santé action sociale. Mm-hmm. Euh, di gërëm seen waa rédaction bi yëpp ak seen kilifa di ñaan seen rajo bi gën a màgg euh, a mën a féete ñi aussi fi ñu soxla ngeen féete leen fa. Mm-hmm. Euh, sant ko gërëm ko bu baax a baax ci kàddu yi nga xamante ne vraiment Mballo Dia Thiam daal di na ko ci suñu antenne bi Mballo dañuy tàmbaleeg suñu émission bi ak li nga xamante ne moom di actualité bi soxal pandémie bi di Covid. dix-neuf jamono ji ñu toll nag ñu ngi wax euh, quatrième vague fii ci Sénégal mu mel ni nag bu ñu waxee quatrième vague wax lépp lu jëm ci wàllum vaccination bi semaine bi ñu génn rek euh, ñu ngi fàttali ne dañu war a amal benn rappel bu campagne bu vaccination mu mel ni euh, vaccination bi am na solo mais dafa mel ni population bi ni ngi leen ko war a expliquer expliquer wuñ ko ko lan nga ñu mën a wax ci li nga xamante ne moom moo soxal rappelu campagne de vaccination bi ak tamit pourquoi ñu defoon benn brique ay mois après. waaw euh, li nga wax euh, am na solo parce que nekk nañ ci quatrième vague. Mm-hmm. parce que ñi nga xam ni euh, seen xam-xam dafa màcce si affaire épidémiologie. maanaam di seetu feebar yi ni ñuy lawee ak lawtaane ci réew yi ak ci àddina bi dañu ni feebar bi bu fekkee ni toog nañu ba amuñu benn cas wala ba nga xam ne yëpp wàcc na ba gisuñu dara bu ñu toogee ay semaine bu amee yeneen cas rek mën nañu wax ni vague am na comme géej ni muy demee euh, yenn saay douze bi day dem yenn saay ñu ne douze bi mu ngi baawaan comme ni muy demee ba tax na nag ñu ngi nekk ci quatrième vague loolu moom lu wóor la Euh, ba tax na nag liñ si nemmeeku mooy euh, variant bu bees bi nga xam ni moom lañ koy dàkkantal euh, mu tudd omicron dem nañu sax ba ni micron ci boppam ak beneen bi delta am na sax foo xam ne ànd nañ fa lëkkaloo nañ fa parce que aussi pour mën a indi aussi yeneen façon melokaanu jàngoro bi mm-hmm. wante am na lu nga xam ni quand mën nañ ko ci jàpp mooy delta ni mu soxre woon euh, omicron soxrewul noonu wante nag terewul tamit moom moo gën a gaaw a wàlle mais comme que nag dafay wàlle te bis bu muy wàllee euh, gaawaay bi gaaw nekk na gaawaay bu nga xam ne xel ni ëpp na dayoo loolu mooy yokk ñi nga xam ne ñooy feebar bu yokkoo ñuy feebar nag comme que feebar bi si boppam Euh, dafa yàpp ñi nga xam ne dañu am ay comorbidité maanaam ñu am ay feebar yu lalu si suuf donc ñooñ tam dañu nekk ay sujet à risque mm. euh, seetlu nañu aussi avant delta bi di ñëw biñ leen wax rek covid 19 rek que tout tànk yi daaw leen laal mais finalement moo taxoon sax ñàkk yi njëkk yi tout tànk yi bokkuñu ci woon ak ñeneen yi mm-hmm. mais gis nañu delta bi bu mu ñëwee laal na tout tànk yi ñu bare bare bare bare omicron bi nag aussi moom xamul tout tànk xamul keneen ñëpp lay jàpp mm-hmm. ba na nag comme que dañ naan euh, euh, euh, day mat ak du mat bu joxe sa donc moo gën ba na nag li ñu war simplement mooy xam ne ñu ngi si ci quatrième vague mm-hmm. bu malade yi baree cas grave yi dañuy bare bu kaa yi baree ñii dee tamit dañuy bari ndaxte am na yeneen facteurs yu am parce que ay problème place ay problème mu réanimateur ay problème oxygène yooyu problème yëpp dañuy ñëwaat encore ati. Mm-hmm. Euh, ba na nag euh, yaa ngi wax léegi ñàkk lu am solo la. Mm-hmm. comme garab amagul ba léegi te seetlu nañu ni euh, ñàkk yi seen wàllu boppu dañoo dañoo dañ am nañu njariñ am nañ jeexital ci variant mu njëkk bi muy Covid 19 bi ñu doon wax muy Delta mu yooyu yëpp am na si njeexital am na tamit njeexital aussi si omicron bi comme que nag garab amul te ñàkk rek moo fi te seen na nañu ñëpp ñu ñàkku non seulement ñàkk yi amul benn jeextal ci seen i wér-gu-yaram mais aar na leen tamit ba tax na duñu soit duñu am feebar bi wala duñu bu ñu feebar duñu am cas mm-hmm. donc loolu moo fi sës mm-hmm. euh, li di wax nag boo amul li la gënal maanaam garab goo xam ne da nga koy naan mu faj la nga wër mais am nga vaccin boo xam ne daf lay aar ci loolu loolu moo fi sës léegi nag li ci yéeme nag mooy lan am na euh, vaccin yi bi mu commencé aussi am na ci seen yéen ñii journalistes yi seen farandoo yu bare ak ñeneen ñoo xam dañu mbubboo journaliste dañu ay journaliste dafa du duñu wax ci mbir mi te xamuñu si lu bari di fottaatu ay wax yoo xam ne du ay spécialiste wala ñoo xam ne seen même bu fekkee nekk nañ ci santé sax seen seen seen seen kii wéru ci seen seen xam-xamu wérul mm-hmm. ñu ci wax di ci def di maîtriser wu donc li ñuy wax feek ñu yéen a ma gën xam lool mm-hmm. loolu tax na nag boo ñu bare am ay jeexi jaaxa seen biir euh, comme que nag vaccin lu ñuy dugg ci lu ñuy dugal ci yaram la. ah te dañ koy pikiir ñu bare ñi nga xam ne am na ñoo xam sax muñ feebaree sax boo leen bëggee pikiir sax ñu bañ astement volontaire pour pikiru mm-hmm. loolu mu nekk problème xëy na ñàkk bi bu doon ay toq la wala peut-être ay comprimé yaakaar naa ne xëy na du demee nii mais comme que pikiir la ñu bare aussi ñeme ñu ñu jam leen am na ñoo xam ne aussi dañ ci ragal yeneen wante nag euh, li ci am solo mooy ñun mu mënuñu euh, réew yi nga xam ne ñoo ñu gën a avancé ci médecine ëpp ñu ay technicien ëpp ñu ay équipement ay matériel bu dee ñoom ñoo toog bu fu mu nekk ni feebar bi di leen woon li mu leen di woon mu nekk musiba ñun bu ñu tiitul war nañ setat suñu bopp bu baax a baax a baax mm-hmm. ah ñu ngi nag ñun syndicat lañu li ñu war a wax wax nañ ko en tant que And Gueusseum depuis bien avant feebar bi ñëw fii bu mu tolloo Chine lañ commencé di ci wax ba léegi noppiwuñu mm-hmm. boolewuñu nag fi ñuy dogalee wante nag fépp fu nga xam ni war nañ foo yëkkati suñ kàddu yëkkati nañ fa mm-hmm. yàlla def na nag am na ay ay foo xam ni dañu fay déglu topp ñu ci mm-hmm. am na yoo xam ni dégg nañu waaye topp ñu ci ah, léegi nag loolu mooy diggante gouvernement bi ak population yi population yi aussi def naa ni ba fi ñu toll nii yaakaar naa ni am na kenn ku umpale feebar bi donc nit ñi xam nañu feebar bi dañ naan kay dañ ko nanguwul te loolu aussi beneen mbir la bon vaccin yi ci boppam coow yu bari yëpp kenn génnewul beneen nit di kii dañ ko vacciné mu de en tout amul fii suñu réew amul mm. yaa ngi dégg même dee ñu doon laam-laamee sax bi ñuy defee autopsie yooyu yëpp seet nañu xëy na leneen la woon mais du woon loolu comme que nag vaccin bi du la rey te mën na la aar euh, lan mooy tere nga dem ci surtout que euh, ñun en tant que technicien dañu ni am na ñaari mbir yu ci xew liñ naan euh, bénéfice ak risque soo ñàkkoo ban bénéfice nga am soo ñàkkul yan nga am mm-hmm. soo ñàkkoo bénéfice bi nga am mooy doo feebar wala boo feebaree tamit doo am cas grave te cas grave mooy indi dee maintenant boo ñàkkuwul lan moo xew mën nga feebar ba pare wàll wàll sa njaboot mën nga am cas grave wala kenn sa njaboot mën na am cas grave bu amee cas grave aussi dañ ko yóbbu opital mën na fa am place wala mu bañ fa am place mm-hmm. mën na soxla oxygène wala mu bañ ko soxla leneen mi ngi ci donc loolu mooy risque mm-hmm. donc bu dégg nit ñi xamee noonu nag xam ni aussi bi ñàkk yi jafee dëgg réew mi dem na wuti ay ñàkk indi ko fi donc li ko waroon moom def na ko mm-hmm. donc li am solo kay mooy nit ñi jéem a dem fi ñuy ñàkku ah li ci des nag mooy euh, nan la ñuy organiser ñàkk yi. Mm-hmm. pourquoi ñëpp ñëwuñu ak pour euh, pourquoi ku si nekk am nga première dose amagoo deuxième dose mm-hmm. pourquoi keneen ki daal di ragal am troisième dose. Mm-hmm. kooku yeneen waxtaan la yoo xam ne xëy na si biir wax ji. danañ ci wax ñu lan mooy suñu jàngat. mais daal suñu njàngat moo doon daal que vaccination ñun. Euh, sama naataango bi nekk sama wet xam na ko euh, PV ministre bu ñu naan Assane Diop moo ko njëkk a jëmmal ba mu jëmm waaw programme élargi de vaccination jëmmal ko ba tax na na bañ ko jëmmalee tamit ñun tamit approche critique bi ñu am si lii moom lañ ci amoon ba finalement PV daal di toog fu mu war a toog ñàkk yi ñu jox ko ñu ñu ko war a ñàkk parce que PV boo demee si poste de santé bu nekk am na dispositif boo demee ci centre de santé ak région médical am na équipe de supervision mhm. donc moo tax feebar yi nga xamee ni comme biñ doon wax tétanos déggatoo fi mhm. te tétanos dafa nekk feebar boo nga xamee ni euh, daf dara dalay jàmm mu am infection bu ñu deful pansement bu baax ëllëg si biir nga am tétanos te te lu gaaw lay doon si ñeent fan ba juróom-ñetti fan mun nga am tétanos mhm. liir yi sax yi daan juddu am na loo xam bu ñu ko doon daggee jumbax bi suñ ko daggul ci anam yu sell mu am tétanos da ngay gis ay liir yu nga xam ne bisu leen di ngénte bisoo lay génn àddina ñu naan liir bi dellu na alors que feebar yóbbu dara dellu ko dul tétanos moo ko moo tax mu delluwaat. Mm-hmm. ba tax na programme élargi de vaccination moo tax ñuy ñuy vacciner yaay ji. de ce fait yaay yi tamit ci boppam daal di jox soldaar doom ji moo tax léegi xale bu ñu juddoo kenn du leen vacciner parce que vacciner woon nañu seen yaay. Mm-hmm. mais bu njëkk ku ci juddu rek ñu vacciner sa doom. Mm-hmm. ensuite vacciner la yow tamit. Mm-hmm. yaa ngi di jox la sérum antiranique ñi leen jox leen vaccin est ce yaa ngi dégg wax bi. donc vaccin jëlee na fi tétanos. te feebar boobu da doon da nga jadd jaadaaral ba nga ba nga dee mm-hmm. di nga toll stade bu nga xamee ni doo mën a noyyi ba la ñuy xotti fi sa put dugal fi canule pour nga mën a noy mm-hmm. noonu la tétanos doon def mm-hmm. trachéotomie lañ doon def pour que nga mën a noyyi fii ñi daan sauvé du woon bari ah feebar moo fi jële aussi méningite moo fi jële aussi méningite feebaru jaadaaral la bu nga xamee ni aussi même boo ci wéree sax souvent nga am ay séquelles <laughs> ñoo xam ni bu ñu wax wala seen nopp yi wala yu mel noonu ak yeneen séquelles mm-hmm. mais vaccination aussi Fat Baba moom moo fi jële aussi poliomyélite mm-hmm. da nga gis sa doom xëy rek ngay wax ak moom mu sukk rek dootu jógati parce que feebar bi jot na ko mu mu la fañ toute sa vie durant mm-hmm. yaa ngi dégg mu nekk handicap toute la vie la vie ak yeneen comme rougeole te rougeole li ci gënoon graaw mooy non seulement dafay rey mais aussi day yàq bët. nga tax ku amoon rougeole ñu lay defal ay ay gouttes ci say say bët pour protéger la donc loolu yëpp dama ko wax rek pour wax njariñu vaccination comme que nag loolu moo fi jëlee loolu yëpp mais loolu moo fi mën a jëlee covid aussi mais lan moo tax nit ñi nag dañuy ñakku programme élargi de vaccination mu ngi fi nañu bàyyi ñi war a vacciner ñu vacciner leen mu nekk ay campagne yoo xam ni dañuy jox nit ñi parce que campagne électorale bi du gis nga ñuy génne xaalis mm-hmm. di génne t-shirt mm-hmm. ay casquette ay gadget ak yëpp lu tax defuñu ko ci ci ci covid bi dañ ko waroon def si covid bi infirmier chef de poste yi bàjjenu gox yeeg yooyu ay casquette ay t-shirt jox leen xaalis déplacé leen jox leen seen glacière ku ci nekk am nga sa zone de responsabilité mm-hmm. xam nga ñi nga xam ne war nañ ñàkk ak ñu warul ñàkk parce que am nañu statistique yëpp bu boobaa ku ñëwul dañ la woon ne eh Fatou fii yow vacciné woon kaa bi ma doon wax sànq léegi. Mhm. bu boobaa kooku bu ñëwulee bu ñu xoolee dañ xam ban jour lañ ko vacciné. Mhm. ak vaccin bi ñu ko jox. ban ban ban ban maanaam mën nañ ko wax mun naa mun naa misaal ban bouteille la. maanaam ban flacon la. Mhm. ensuite ban référence la. même bu ko ci dara dalee sax mun nañ seet ndax ndax fi ñu ko ñàkkee ndax bouteille yooyu yëpp wala flacon yooyu yëpp ndax moo moo tax ñooñu ñëpp am feebar bi wala amuñu ko. parce que dafa am traçabilité. d'accord maintenant nag lan la gouvernement bi def. ay vaccino juróom comme France mm-hmm. mais ñun neen nañu vaccino show la parce que bu fekkee nii France ñoom am nañu. vaccino show c'est-à-dire non maanaam dañuy théâtre rek. d'accord dañuy nit ñi nit ñi ah, ah mais loolu loolu lañ ko mun a mun a waxee. parce que bu fekkee ni ki war a ñàkk. xam naa ñi mu war a ñàkk ñu ne dans une population parce que poste santé bu nekk dafa polariser ay population bien donné. Mm-hmm. donc jarul ngay dem di nit ki di ko vacciner ti leen. alors que moom mi ngi dëkk Gaksaaw fii wala ma nga dëkk euh, yaa ngi dégg Géejawaay mm-hmm. est-ce que dégg mm-hmm. donc ku ci nekk fañ la war a ñàkkee nañ la fa ñàkkee mm-hmm. boobaa dañ xam ci gox bi ñan lañ ñàkk ak ñan lañ ñàkkul ñan ñoo am première dose ak ñan ñoo soxla deuxième dose problème yooyu du am ñun noonu lañ ko gisee moo moo tax ñu naan leen nañu repositionner le programme élargi de vaccination vaccin bi comme le médicament appartient aux pharmaciens mm-hmm. nous nous pensons que le vaccin aussi appartient à ces spécialistes là yi mm-hmm. fi nekk tous les jours mm-hmm. donc loolu mooy loolu leneen li nag mooy aussi sénégalais tamit dafa war a xam lu mu bëgg parce que mënoo nga ne yow ñu ne la masque nga ne bëgguma ñu la raxasu nga ne ma raxasu ñàkk nga ne doo ñàkku ba pare nga bëgg feebar bi du la def dara wala mu jóge fii ah nan la fii jóge mhm. te beneen exemple la ngi nii suñu joueurs yi équipe nationale actuellement ma nga fële mhm. mais lan moo tax ñuy jiixi jaaxa parce que dafa am ñoo xam ne gis nañ jam jàngoro bi feeñ ci ñoom mhm. moo tax football ñu Sénégal jaaxle na fu mu ne nii àddina bi yëpp ñu ko dajaloo foofu coupe rek mooy seen seen seen xel moo nekk si xelu ñëpp waaw mais fu mu nekk nii lan moo ko nar a gàllankoor ñu ne équipe yi ñu amoon Covid mais lan la ñu war a mën a def pour loolu mais nañ ko def mu jóge fi benn yoon ñu noppalu. Mm-hmm. mais tant que defuñu ko nag dootuñu noppalu. Mm-hmm. te aussi système de santé bi aussi réew yi ñu xam ne ñoo ñu ëpp doole mais dem nañu ba système bi seen système bi yëpp nërmeelu nërmeelu complètement mm-hmm. donc comme que seen seen kii nërmeelu na complètement ah ndegam asama ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy may mbaa ñuy jox wala ñoom ñoo ñuy jaay. donc war nañu seetaat suñu bopp daal laa loolu laa mun a tënk daal ci foofu. d'accord. Euh, justement Mballo Thiam euh, euh, développé nga lu yaatu jëm ci lépp jëm ci wàllum vaccination bi mais mu mel ni diabolisation vaccination bi du tey ñu ngi fàttaliku bi ñuy lancé vaccination contre lu ñuy duppee cancer du col de l'utérus am na ay mouvement yu fi jógoon ay propagande tey jii da nga jàpp ne sénégalais yi dañoo bëggul a yeewu wala communication bi nga xamante ne moom la ñu war a def ngir mën a ngir askan wi mën a approprier les bienfaits donc des vaccins moom moo des. non xam nga ñun dañoo xaw a jaaxle parce que même bu fekkee ni nekk nañ ay jullit tamit. Mm-hmm. mais xoolal suñu diggante ak religion bi. loolu nekk na problème parce que ñun tamit dafa nekk ñu ñoo xamee ni dañuy bëgg benn mbir ba pare. bëgg bëgg safaan ba. Mm-hmm. te loolu mënul yombal dara euh, ensuite. nit ko aussi soo ko wóoloo jiital ko danga koy doylu ci li muy def ak li muy wax. Mm-hmm. defe naa ni exemple yu bare sur la vaccination joxe nañ ko. tout ñi waroon njëkk a ñàkku. ñàkku nañu waat nañ mm-hmm. mais terewul aussi ñeneen ñi ci waroon topp topp ci. Mm-hmm. ba pare ñu ci dugal discours yu nga xam ni ça n'a rien à loolu baaxul. surtout que yow koo xam ni mënuloo ko dara dara nga ko mënalul. mënuloo sa bopp dara ñi la mënal buñ la nee lii la war a demee obi nga tënku ci loolu. Mm-hmm. yeneen réew yi amuñu problème boobu. gis naa benn réew bu nga xam ne ñoom ñu ngi exiger pour ñu ñëw vacciner leen. Mm-hmm. alors que fii dañuy dañuy nax neexal nit ñi neexal nit ñi pour ñu dem pour ñu vacciner leen. Mm-hmm. mais fa lañ ko teg. gis nga même couverture maladie universelle yow mënuloo fajal sa wala amuloo alal joo wala fajoo ñun la boo defee nangam ñu tegale ci nangam. di nga mën a faju mais ñun culture prévention si wàllu boppam moom la ñu amul. Mm-hmm. koo ci wax mu ne non man du ma du ma du ma du ma du ma fa def sama xaalis parce que feebaruma te pourtant boo ko fa defee dana faj ñeneen ëllëg si biir bu daal dañu faj la mais nit ñi amuñu culture boobu. Mm-hmm. moo tax même culture assurance amuñu ko. Mm-hmm. ñun problème boobu la ñu am. te donc il faut que kon ñu delluwaat ci ci kër yi ci foyer yi il faut que man defe naa. defe naa problème boobu il faut que delluwaat si si si kër yi non problème mu sax. problème valeur yi il faut que ñu delluwaat foofu pour que nit ñi xam ni discipline. Mhm. dafa baax ci lu nekk te lépp lu discipline may leen du la ko mën a mën a may. Mhm. bu ñu delluwaat foofu aussi xam ni éducation pour la santé aussi foofu la war a commencer. ñu wax la feebar bi nii la ah, ana lañ ko fi jëlee. Mhm. nga war a mën a wékku ci loolu mais tant que defuñu ko. fii la ñuy nekk eh, ku ci nekk di jaay sa moroom xam-xam eh, équipe nationale mi ngi nii joué ñaata entraîneur presque dix sept millions sénégalais yi presque quinze dix millions entraîneur mm-hmm. ku nekk yow yow yow Aliou Cissé nga fële man xaw ma ci dara ci mbir yi. Mm-hmm. mais ñi muy dajale ci biir terrain bi moom moo fanaan ak ñoom. Mm-hmm. moo xam ku ci boppam doon métti ak ku ci tànkam kii yow nga nekk fi nga naan pour ñu dugal Ousmane Mbaye te ñu bàyyi Fatou Baba nangam yow lu ci loo ci xam. mais c'est pas possible ça c'est le sénégalais. Euh, voilà loolu moo tax affaire bi affaire bi jafe. Hmm. léegi lan la nit ñi xam nañu bu ñu demee bay ay deux milliards ay quatre milliards ñu koy sànni ay vaccin yoo xam ne ni xel ni benn dose rek warul woon rëcc parce que benn dose rek mën na sauver kenn. Hmm. et man mënuma d'accord yow nga ne yow. Euh, euh, ñeme nga feebar bi mais loo ko ñeme ñu aussi amuloo droit yow ngay wàll sa sa jëkkër wala ngay wàll sa jabar wala ngay wàll sa doom mm-hmm. c'est-à-dire droit boobu mën a am ci sa bopp droit boobu mayu la nga dem permettre ko nga dem di di di mm-hmm. yàqal keneen mm-hmm. réew mi di di di kii ëllëg si biir quatrième vague bi on le souhaite pas avec cette yàlla mu am yeneen développement mais dem rek yaayu quatre morts xaw ma ki dem ah benn lañ nekkoon quatre morts mais cas bu njëkk bi bi fi duggoon Sénégal benn cas rek la woon après fu ñu toll Mm-hmm. ci ay ñàngami ay milliers de cas. ay ba ay décès ñaata. Mm-hmm. loolu war nañ ci bàyyi xel. Mm-hmm. léegi nag nit ñi xam nañ de si gën a bari xam nañu mais dañoo dul def. wala bëgguñu def. wekku rek ci yàlla. Ah, yàlla nag yàlla yàlla bay sa tool. d'accord. d'accord euh, Mballo wax nga ko cinq ans euh, moom lañu ñu entamé suñu suñu suñu suñu émission bi sax tey rappel de campagne bi mais mu mel ni eh, du xaw a yomb ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo jëloon première dose bi parce que guddi ñu toll defoon première dose au mois de peut-être euh, octobre wala novembre ñu bàyyi ba janvier nga pour nga mën a reprendre ce ce ce vaccination bëri na ay ñoo xamante ne bëgg nañu dem mais ñoom mënuñu édifier seen bopp sax par rapport ak de un vaccin bi ñu jëloon seen fiche réer na leen tey jii ban politique la ñu war a en place pour ñëpp ñi nga xamante ne ñoo jëloon waxuma sax troisième dose bi mais pour ñu mën a jël seen dose deuxième dose am na ñu bëri ñoo xam ne première dose bi ba sànq ba tey fa la ñu yem. waaw ñun si xalaat bu gàtt bi ñu am mooy ñëpp ñu nga xamee ni ñàkkoon nañ leen ci première dose bi. Mm-hmm. nañ seen tur. seen filiation ak seen téléphone. Mhm. même bu seen këyit réeree bu ñu delloo fu ñu ñàkkoon ñooñu danañ leen wax kañ la woon mën nañ sax bu tal laa leen beneen këyit. Mhm. parce que mi ngi ci aussi ordinateur bi. Mhm. ba tax na même boo bëggee passe sanitaire sax soo joxe information yi bu tàppee rek. danañ xam ne xel ne yow ñàkk bi nga ñàkku même xam nañ sax ban façon ñàkk nga ñàkk ko ñàkk. donc loolu nekk na lu nga xam ni nekkul problème. pour ñi xam ni dañoo fàtte. wala pour ñi nga xam ne dañoo réeral seen kayit. Mhm. loolu war nañ ko war na mën a yomb. Mhm. léegi nag leneen li mooy euh, ñu ki nga xam ne xel ni par exemple jëloon na benn dose. Mhm. Euh, nit ñi yaakaar ci boppam dina ñëw jël ñaareel dose mais kooku bu ñëwul def deuxième dose nan nga mën a expliquer loolu mu ñàkk ba pare ñu koy wër pour mu war a ñàkkuwaat. ñu ngi koy woo pour mu ñu war a ñàkkuwaat xam nga loolu kooku kenn mënu lu ko dara. ah ki nga xam ne xel ni sax difficilement la nangu ñaari doses yi soo ko nee léegi euh, war nga jël si beneen beneen dose kooku tamit ci xelam tamit danaan mais ñii xanaa nekk ñu di làmbatu ñoom ni woon ñaar rek doyoon na. mais dañuy réer mbir aussi daal ni dafa am benn variant bu doon benn microbile rek wala benn virus bi rek moo fi nekkoon ba tey. Mm-hmm. kon kenn du wax ay variant kenn du wax ay deuxième ak troisième dose. bu doon tu aussi benn réew rek moo defoon benn vaccin ñun yëpp ñu bokkandoo ci du demee noonu mais réew bu ci nekk dafa def vaccin moo tax ñii ñu ne vaccin bi euh, mën na la aar maanaam ci population bi boo jëlee téeméeri nit juróom fukk yi ba ci ci tegal mën na leen aar ñii daal ni vaccin mën na aar juróom-ñaar fukki nit ci téeméer. Mhm. ñii daal ni téeméer bu nekk sax euh, xëy na day manqué. juróom wala wala fukk ak juróom mais ñoo ñëpp mën nañu am immunité wante nag foo gis affaire vaccination tamit dafa am probabilité parce que saa ñu ne quatre vingt dix neuf pour cent xam nga matul cent. Mm-hmm. un boobu le am na un boobu xam ne xel ni mën na am feebar bi mën na am aussi feebar bu garaaw. ba tax na li ñu ci bëgg mooy li ñu naan immunité collective maanaam ñu bare bu ñu toogee ba nga xam ni feebar bi euh, vaccination bi dugg na leen ñu dañuy ës. lool bu boobaa feebar yi dana gaaw génn mhm. loolu lañ ci soxla woon mhm. mais li ñuy def Sénégal nii du loolu la ñu soxla woon parce que presque at a ngi ni ñuy vacciné ñu ngi ci ay un million trois cent ci oh, dix-sept millions d'habitants alors que liñ ci bëggoon mooy ci diir bu gàtt diggante weer wala ñetti weer wala juróom-benn weer ñu fexe ba dix-sept millions d'habitants yi au moins ñu ne dix million wala cinq millions wala huit millions sax ñàkku nañu mhm. mais xam nga kon sori nañu lim bi trop trop un million trois cent un million matu sax cinq cent. pendant six mois. bu ñu neexee sax ñu ne comparaison bi moom mu bokk même même la troisième dose la ñan nga koy defool mm-hmm. ñi ngi koy defal tamit euh, nee nañu euh, troisième dose bi expérience expert ñoo ci waxtaan ci fan yi passé daal ni képp ku woon ba nga xam ni ñàkk bi weesu na juróomi weer. cinq mois. waaw comme comme mat na juróomi weer wala mu wees juróomi weer. Mm. mën nga jël troisième dose mais li ko waral mooy mooy variant bu bees bi te nee nañ aussi dana am yeneen variant aussi yuy ñëw. ñu ngi voilà loolu nag moom moo tax ñu bëgg nit ñi aussi gën a dëgëral soldats yi nekk seen yaram. parce que xamuñu melokaanu yeneen variant yi ñëw. Mhm. te bu ñuy ñëw aussi nit bu ñu defee aussi ñu faj leen. Mhm. alal la ñuy def si ñoom pour faj leen. te alal jooju mënoon nañ ko def ci leneen. Mm-hmm. li liñ naan ci suñu jargon dépense catastrophique. Mm-hmm. maanaam alal ju nga xamee ne xëy na yow sa kër da ko dajale woon pour que nga réparer sa oto wala pour nga jënd say meuble wala pour nga dem jox beneen soxla. nga def ko ci sa wér-gu-yaram mm-hmm. alors que loolu waru ko tax a jóg loolu mooy dépense catastrophique ah mën nañu waxu état état bi aussi bu demee ba toll foofu aussi dañ naan ay dépenses catastrophiques la parce que xaalis bu mu waroon dajalee pour tabax ko yeneen hôpitaux wala pour équiper wala même pour fay fay personnel su ko waree jënd ay garab ak yu mel noonu alors que waroon na ko def feneen. Mhm. loolu tamit gënul ci suñu économie. Mhm. te dañoo néew doole. Mhm. donc loolu sénégalais bu nekk. on def son introspection. ñu jéem a xam ne xëy na ñun feebar ñoo ko fi mën a jëlee du fi jëlee boppam. te buñ ci dogoo comme ñeneen mu jóge fi mhm. loolu laa ci mën a wax comme comme comme comme kii léegi nag li waral nag yooyu aussi mhm. bana explication parce que nee nañu ah, feebar feebar bi xamuñu ko woon bu baax mhm. comme que xamuñu ko woon bu baax moo tax bu njëkk ba ñu ne ah bu ñu ñàkk dee euh, ñi ñi nga xam ne dañoo war na lor duñ leen ñakk tout tànk yi duñ leen ñàkk mais nañu privilégié ñi nga xamee ni am nañu hypertension wala jabet wala yeneen i feebar nañ leen vacciné xam nga kon am na ñoo xam ne boole wuñ seen bopp jékki-jékki feebar yi di laal ñi nga xamee ni xel ni ci catégorie boobu lañ bokk ñu ne kaay leen ni ah comment ñun bokk ñoon léegi ñu ngi bëgg a bokk te xale yi boobu taan ne woon leen même bu dee feebar bi du leen laal aussi war ngeen fexe ba du ngeen ko ñëw jox ko seen maam yu wala seen seen seen seen seen seen waa parce que ñu ñoo dajaloo ci terrain football bi ak partout donc mu nekk benn affaire beneen bi aussi bi ñëpp sangandoo vaccination aussi amoon na rupture aussi parce que ñàkk aussi dafa jafe aussi ba ba tax na aussi ba ba ñàkk yi ñëwee aussi am na yoo xam ne disponible loolu nañu pour ñeen ñi mais ñeneen aussi vaccin bi ñu doon xaar ñëwul woon aussi loolu tamit nekkoon na a à dysfonctionnement ça aussi il faut qu'on le dise. Mm-hmm. aussi dañoo taamu. dañu ni man bii bu amee ma ñàkku bii bu amul bii du ma ci du ma ci ñàkkoo mm-hmm. ba fu mu nekk nii sax avec ba fu mu nekk ni sax troisième dose bi ministère de la santé war na def communication bu baree bare parce que ku ci nekk danaa la man de bii laa jëloon jël naa si ñaar mhm. est-ce que beneen bi bu mën a mel mën naa ko jël yaa ngi dégg ah léegi nag aussi est-ce que da nga war a xaar rek bi njëkk bi wala bi mujj bi mhm. wala bu ci nekk boo ci mën a am rek boo amee juróom weer euh, mat na loolu gouvernement bi war na ci mën a communiquer mhm. yaa ngi dégg nee nag li gën mooy boo jëlee bii ñaari yoon mën nga ko jël ñetteel yoon waaye bi nga jël waroo jël beneen bi parce que boobu beneen xeetu vaccin la mën a am beneen xeet jeexital ci sa yaram loolu war nañ ci mën a communiquer pour wax ni troisième dose waaw c'est vrai mais ak ban ban antigène mhm. la ñu jël troisième dose mhm. et puis ci en délai mhm. ak fan lañ koy fekk est-ce que yemb na pour ñëpp waaw loolu mooy wax bi nga xam ni ministère de la santé moo ci mën a tontu ñun mënuñu ci tontu d'accord euh, Mballo Dia Thiam dañuy des ci loolu ba léegi ndax euh, Covid bi moo moo moo moo demee nu ni mel euh, tey jii Covid bi dugg na fi deux mille dix neuf tey ñoo ngi ci deux mille vingt deux boobu ba léegi amaana ma état bi personnel de santé bi ku ci nekk yaa ngi des kentu lay kattan ngir peut mën a génne jàngoro bi mais moo mel ni dafa des tey jii boo ñu mënoon defal benn petite évaluation wala ab xayma ci jéego yi nga xamante ne nguur gi. jot na ko def euh, ban impact nga ñu ci mën a wax. waaw euh, euh, tubaab daan na mooy wax souvent ak quelque chose malheur bon. Mhm. tubaab moo ko waxal boppam. mais li si jàpp mooy Covid bi wane woon ñun revendication yi ñu doon def. Mhm. sur le plateau technique. plateau technique nag nekkul rek bâtiment bi dong. Mhm. nekkul équipement yi dong. plateau technique ensemble maanaam bâtiment yi. maanaam bërëbu fajukaay bi ak jumtuwaay yi nga xamee ni moo fara nekk te léegi ay jumtuwaay yu xarala la ñuy doon ak ñi nga xam ne ñoo mën a liggéey ci jumtuwaay yooyu loolu moom mooy nekk plateau technique benn bu ci manqué rek plateau technique bi matul. Mhm. yembul. Mhm. ba nag wane na ni nag euh, hôpitaux yi gënoon kawe lu bare manqué woon nañ ko si équipement ay équipement urgence manqué woon nañ ko ay ay ay ay ay respirateur ay appareil oxygène manqué woon na am na ñoo xam ne aussi manqué woon nañu sax ay tensiomètre ak yu mel noonu bon bokk nag matériel de protection bi ñu daan bi ñu doon wax ay épi yi ak euh, ay thermoflash ak yu mel noonu ak yeneen ak yeneen ak yeneen consommable yi mhm. donc yàlla def na aussi euh, que ñun yàgg nañu wax ni CTE yi waruñu woon nekk ci biir hôpitaux yi pour ñun bu fekkee am nañu euh, li ñu naan Euh, un centre des opérations de secours d'urgence mm-hmm. du pour feebar rek mais on le souhaite pas même pour ay catastrophe ba tax na nag service yooyu waruñu ñëw lekk lalu hôpital chandé mm-hmm. parce que hôpital dafa am may malades yu nga xam ne ñoo fa war a nekk ensuite yeneen malades yu nga xam ne xeetu malade yoo xam ne bu ñu ñëwee dafa am fenn fu leen war a fajee mm-hmm. mais dañoo mujj covid bi ñi nga xam ne xel ni sax ay personnes âgées la woon ñu warul nekk fi ñu war a nekk ñuy ñëw def ay Covid ñoom ñu leen bàyyi seen kër ak ñeneen ñu am yeneen feebar seen feebar yi di gën a yokku. est-ce que yaa ngi mm-hmm. donc problème boobu wane na ni capacité bi donc loolu moo ko doon wàññi te war nañu def leneen moo tax ñu créer ay yeneen CTE ak ay zone tampon yooyu yëpp loolu moo ko waral. Mm-hmm. beneen bi aussi wane na ni. Euh, yàgg nañ ko wax dëkk bu mel ni Sénégal en près de dix-sept millions d'habitants fu mu nekk nii ñun ak Tunisie ñoo demandoon presque indépendance avec les mêmes agrégats li mm-hmm. ñuy wax macroéconomique ñoom bu ñu demee ba am ay ay dix-sept mille médecins ak yu mel noonu ñun ñu am ay ay ay mille cinq cent médecins donc yi recrutement yu wees yi moo tax ñu war a dem ay deux mille ak yooyu. des médecins boo gisee donc ratio bi dafa faible trop trop. nga gis ku judd ba dee du gis médecin. tout à fait infirmier lay gis aide infirmier wala du gis gynécologue sage femme lay ba tey mu nekk nii. donc wane na ni aussi am na ay jéego yu bari ñu war a def. Mm-hmm. surtout que président de la République mu ni PSE mu ni axe deux bi mooy développement du capital humain. Ah, mais capital humain mooy ay nit yu mën a wér. dem ci développement bi mm-hmm. mais il aussi ay structures yu nga xam ni mën nañ leen ku ci ku ci ku ci tëdd tey bu suba gannaaw suba nga jóg war a mën a dellu sa liggéey mm-hmm. bérébu liggéeykaay donc ñooñu aussi ak personnel bu ñoom mais personnel santé déficit bu mag la. déficit ba ñu jël yeneen nit ñu ñëw yokk ci dolli dolli ko ci pour mën a jàppale waa kii te gis nga aussi am na ñoo xam ne fay nañ leen ñi fay ñu leen. Mm-hmm. yaa ngi te loolu jaaduwul. Mm-hmm. te aussi am na ay ci am ci lu mel noonu bu ñu génnee mille milliards ñun mooy suñu conviction mille milliards rek warul jar ceeb ak macaroni ak leneen ak leneen. donc même bu jaree loolu sax aussi war na fekk aussi ñi manqué woon ñu matale ba ñu mat parce que feebar bi moo waral loolu na ñu njëkk ci feebar bi ak ñi faj ñu toppatoo feebar bi dooru mujj si ñeneen ñi nga xam ni feebar bi moo leen di impacté mhm. def naa loolu war ngeen si mën a d'accord ba tax na ñu ngi rafetlu fu mu nekk nii Médis ubbi na ah mais ubbi ñu ngi koy rafetlu bu lool lool ñu ngi ciy kontaan xale mhm. sax sax bind nañ ma benn lettre di ma remercier pour plaidoyer bi ñu doon def parce que mënoo am mille milliards di jënd ay bateau ay masque ak yu noonu tey Médis cinq milliards rek tere ko démarré te Médis war jox ay garab yoo soxla pour grippe ak yeneen ay vitamine C fer paracétamol yooyu yëpp nga war ko soxla ngay wax liñ naan euh, euh, autonomie wala liñ naan souveraineté sanitaire mais souveraineté sanitaire médicament ci la bokk. pour réew bu nga xam ne nii day importer jusqu'à quatre vingt quatre vingt cinq quinze pour cent de ces de ces de médicaments ñu ngi koy importer alors que kii bu lu bon bon mën na jox sax même bu dee dix wala quinze pour cent sax mën na nekk. yaa ngi dégg réew muy importer cot euh, coton hydrophile coton cardé ak compresse alors que nous sommes un pays producteur de coton. yooyu mi ngi noonu sérum glucosé sérum glucosé mooy ndox ak suukar. mooy sowetaas ak ndoxu xorom mooy kii ci butéel pour nga dugal si médic comme perfusion yi nga dem di ko dugal ay bateau wala ay avion di ko jël ci bitim réew di ko fi indi loolu aussi wane na ni donc am na loo xam ni war nañ ko mun defal suñu bopp mm. bu ñu bëggee suñu souveraineté mm-hmm. parce que am na ay moment yoo xam ne am na réew moo xam ni masque yi waroon ñu dem feneen dafa détourné masque yi. parce que moo ko gën a. <laughs> voilà voilà moo maanaam boo toogee ba nga xam li ngay soxla ñi koy liggéey ñoo la ko gën a soxla. Uh-huh. war nga seetaat sa bopp pour que suba boo boo waree soxla fekk denc nga ko fenn wala am na ku la defal. Uh-huh. donc loolu wane na ni. sur le plan des ressources humaines manqué na lool. Uh-huh. su le plan des équipements manqué na lool. mais nag ñu ngi rafetlu aussi jéego yi ñu def. matul nag mais jéego yi bari na. Mm. parce que ay ay ay appareils d'hémodialyse yi ñu ci jënd jënd nañu ba jënd yoo nga xam ne sax ni amuñu sax ay nit. yu ci ay spécialistes yi ko war a mën a liggéey. loolu am na solo ah hôpitaux hôpitaux yi aussi créé nañu ay hôpitaux yu yu bees. Mm-hmm. quatre hôpitaux mais problème yooyu aussi la hôpitaux yi am. am na mm-hmm. équipement yu war mais nit ñi leen fonctionner amul. Mm-hmm. te mënuñu leen inventé mënuñu leen créé. ba tax nag école bi ENDSS bis bi nag ñu ngi yuuxu. tout à fait parce que mënuñu yëkkati niveau recrutement bi au bac. nit ñi génn ak seen licence nekk ay infirmier ak sage-femme mm. war fa dellu pour am seen i master am fa seen spécialité soit anesthésie wala ophtalmo wala leneen ak leneen ak leneen ak rajo ak néphro mm. ñu leen di bàyyi ba fu nekk ni université Gaston Berger bu Saint-Louis leen di former ñenn ñi université Dakar mm-hmm. teguñu ko fenn mm-hmm. parce que loolu aussi dafa war a suivre loolu aussi Covid bi révélé ni ñooñu dañ fee tumuranke mm. te war na ay jéego yu war a mun a def mm. pour loolu te ay problème de décision la ay problème de volonté simplement la mm-hmm. parce que ñi leen war jàngal ñu ngi fi jumtuwaay ñu ngi fi te même ñi ñu évacué ay Maroc yu mel noonu ñi leen jàngal ñoo nekk fii parce que suñu professeurs yi xarale yëpp yu fi nekk yëpp fii ñeneen ñiy jàngee dem ay France Angleterre parce que foofu lañ jàngee xam-xam bi ñooñu am ñi am li leen wuutale mooy jumtuwaay yi simplement mm-hmm. équipement yi mm-hmm. te tey ji euh, maa ngi rappelé wu Euh, son excellence Ablaye Wade bi mu wax NEPAD volet sanitaire du NEPAD mi doon wax ni lu Sénégal par exemple mën moom kot mhm. na ko defal boppam bu dee li mu mën moog Mali mën nañ ko booleeg ñu bokk ko mais nañ nañ nañ fexe daal ba ñu mën a am ñu am ko fi en Afrique te ñu jégaane mhm. bu ñuy jégaane nañ jégaan loo xam ne amul fen mhm. te loolu donc waroon na mën a nekk moo taxoon ñu ne ëpp ophtalmo bi na nekk fële nu mu tëddi euh, en Gambie ah mais fii war na nekk euh, ëpp cardiovasculaire maanaam feebaru xol yi feebaru rein ak yu mel noonu war na mën a nekk fii ak yu mel noonu donc loolu nag fu mu commencé mooy ñu fexe ba li fi manqué donc ñu mottali ko maanaam combler les gaps mm-hmm. et euh, loolu aussi ñu ngi koy rafetlu parce que y a eu beaucoup de gaps mm-hmm. mais aussi am na yeneen parce que démographie bi bu dee yokku besoin santé yi dañuy yokku te besoin santé bokkul ak besoin éducation mhm. besoin santé c'est avant la naissance jusqu'après la mort même mhm. après la mort il y a en santé mhm. ba tax na nag budget bi ñu war ko xoolaat bu baax parce que mënoo am deux cent quelques milliards ngay ngay compal santé ay ay ay ay deux cent milliards alors que yeneen yu nga xam ni ëpp ñu ko njëriñ ci dëkk bi ñu am deux fois plus wala yu mel noonu loolu aussi ay choix la yoo xam ni volonté bi ci kaw la nekk ñu nag liñ ci mën mooy su ñu defee lu nga xam ni eh, jaar na yoon ñu leen ah lii de jaar na yoon eh, bu dee def nañu aussi li nga xam war nañ def ñu rafetlu ko mm-hmm. bu fekkee aussi am na leen lu nga xam ni nekk safaan ba la ah ñu teg suñu tànk bu ñu waree gësam ñu gësam bu ñu waree yëngal tamit ñu yëngal. donc ci yooyu tànk yooyu lañ nekk. Mm. Euh, Mballo Dia Thiam donc ko wax léegi ci sa biir waxan ah, euh, CTI e yi mu mel ni am na ci ñoo xamante ne état bi daf leen euh, amel ñi six mois ñi quatre mois def nañ fi conférence de presse def nañ fi port de brassard rouge def nañ fi sax sitting ba à la dernière minute am na benn circulaire bu génnoon bu wax ne certainement après dootuñu leen fay mais je suppose que dootuñu leen fay boobu. boobu il faut que ñu évacuer lu leen ameel ba léegi ngeen euh, bokkoon ci ñu porter le combat ci loolu euh, te jii fu ngeen ci toll ak rappel de paiement yi nga xamante ne moom moo soxal personnel de santé bi nekk ci CTE yi. waaw euh, def naa ni ñoom xayma nañ ko. Mhm. ci bu ñu mujj gi ci liñ ci xam mooy quatre cent millions moom lañ leen war a amel mais fekk na xaalis bi ko waree mobiliser. Euh, ñu nekk en fin de gestion. Mhm. nee nañu nag premier trimestre bi donc dañu leen fay premier trimestre deux mille vingt deux parce que budget aussi ay kii la. ay prévision la. mais maintenant aussi am na yeneen yoo xam ne tam dafa nekk ci suuf lu nga xam ni moo situation bi. Mhm. parce que ki nga xam ni moo war a jël nit ñi. kooku jëlu woon nit ñi maanaam DRH ci boppam. Mm-hmm. dafa am yeneen structure yu dem engagé wu jël ay nit ba pare ñoom ñu war a fay loolu mooy indi ay dysfonctionnement mais bu doon defoon nañ de telle sorte que ki war a si ay contrat defoon na loolu signé recruter ay ay contractuel am loolu mun nañ ko def. mais demul woon noonu. Mm-hmm. ba tax na nag dysfonctionnement yi am na euh, au niveau des collectivités euh, Sidia mëne woon na combat bi moo déggoon nga mënoon wax fi opération gox yi Sidia Ndiaye évidemment collectivité yi waaw waaw fay nañu bon bien sûr alhamdulilah mooy vice président bi mm. léegi am na ñu ci fayoon nag am na ñu des parce que ñi dañ leen fay juróom benn weer ñi ñu fay ñaari weer ñi fay leen weer loolu aussi def nañu liste bi ak yëpp ba dage ministère de la santé mi ngi woon nekk ci ci biir moom la mais comme que fond Covid bi dafa am benn décret bu ko créé woon bañ defee seen évaluation donc ñu ne loolu taxaw na léegi. Mm. donc lépp lu nga xam ne nii amee lañ ko ci yeneen source lañ ko war a mën a wane mais mënuñu ko wute foofu est-ce que yaa ngi comprendre li waxee. Mm-hmm. mais li am solo mooy ministre de la santé engagement bi pour que ñoom ñu fay loolu. ñi nga xam ni aussi hôpitaux yi euh, ministère de la santé wala daaj moo leen war a jox dañ leen jox seen wàll ñu fay leen. Mm-hmm. am nañ ci yaakaar. Mm-hmm. ah bu ñu leen fayul tamit ñu delloo rek donc buum si booy boobu ñun amuñu problème boobu ci préoccupation boobu. Mm-hmm. ba na loolu mooy fond Covid bi maintenant nag aussi ñàkk ñu wax aussi que ni bu fekkee ni nee nañu euh, am na lu mat euh, sept milliards et quelques yoo xamee ni jox nañ ko ministère de la santé pour le personnel. Mm-hmm. ñu foogoon nañ ni bu ñu toogoon ñu ne ah nangam la danañ mën a wax kan moo ko yeyoo ak yan condition bu boo mën nañ dem évaluation xam nu mu demee. mais yàlla def na nag ñun wax nañ ko bu yàgg. Mm-hmm. ñun xamuñu woon ñaata la ñu génnee pour jox ko personnel bi pour seen motivation. Mm-hmm. dañoo xëy rek ñuy joxe ñi ñu jox nit ñi ba si yàgg ñu arrêté. Mm-hmm. ñi am juróom benn weer ñi am ñeenti weer ñi am ñetti weer. donc loolu na aussi bu fekkee amul woon texte bu ko waxoon xam nga kon dinañ mën a sukkandiku kii texte bi. daal ni ku nekk na am. mais amul tex bu ko même bu amee aussi ñun gisuñu ko. Mhm. ba tax nag mënoo laaj loo xam ne ni amoo benn lenn la ko jox. comme comme comme droit. Mhm. loolu mooy problème mu fond Covid yooyu la mhm. euh, yi war a dem ci personnel bi. mais li am solo mooy ñu ngi continuer di laaj li ñu war a laaj. Institut Pasteur aussi. am na loo xam ne am na lu ko war ci diggante personnel am parce que non seulement gagné na xaalis bu bare ci test Covid yi. am na si ñoo xam ni bokkoon nañ ci ministère moo génne xaalis jox leen mais ñoo waroon nañ génne seen dafa ko ñoom waa Institut Pasteur jox ñi nga xam ne bokk nañ ci liggéey bi ci test yi. Mm. te def ci liggéey bu bu bu ñàkk ñàkk ñàkk ayib comme ni ñu ko waxee. Mm. bu mucc ayib. ba tax na ñoom tamit ba léegi ñuy laaj seen wàll ci foofu au niveau de l'Institut Pasteur. Mm-hmm. d'accord. Euh, euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali ne yéen a ngi teewlu seen émission bii di SOS santé te nag SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di Mbaloja Thiam nekk euh, président bu alliance des syndicats autonomes du secteur de la santé ñu gën ko xam ci ànd gësëm waaye tamit nekk secretaire général bu SUTSAS Mbalo dañuy xuus ci waxtaan bi rek mais génn ci lépp jëm ci wàllum gestion Covid bi xam naa ne eh, liñ ci war a wax bëri mais mais jëm rek ci lépp li xamante ne moom moo soxal euh, corps médical bi ñu nemmeeku ñi ne ñu nemmeeku ci yenn gox yi surtout à l'intérieur du pays dañuy gis ne am na ñoo xamante ne dañuy farataal di métital wala di bunu xatal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waykor docteurs yi yu ci mujj rek ay sage femme ñu brutaliser leen te Sédhiou ngeen porté woon le combat di wax ne il faut état bi jël ci ay dogal parce que lu ni mel foog ñu arrêté ko mais mu mel ni lu ñuy wax dafa euh, dugg ci nopp gauche bi génn ci nopp droite bi ndax bi bu dafa continuer tey jii laxisme boobu wala ñàkk punition lañ ko mën a tuddee. waaw lépp loo wax daal mën nañ xalaat ni loolu la. Mm-hmm. parce que ndawal buur bu demee di liggéeyal buur buur daf ko war a aar. Euh, Sédhiou moom kom ko foofu nga njëkkee. Mm-hmm. Sédhiou mille 2004 euh, sama naataango bi nekk sama wet fekk na ko 2004. dañoo xëy informé de poste bi ñu amoon benn mouvement doon def sitting ñu waroon vacciner xale yi nekk foofu ñu a convention des jeunes de Sédhiou ñoom ñoo xëy rek daal di ñëw daal ni comme que waa yi dafa dafay def sitting du vacciner seen i doom ak seen i jabar ñoom tamit danañ fexe ba ba génn ko fi te bu moytu sax danañ ko sànq ñu riir wuti poste ba. malheureusement pour ñoom heureusement pour lui fekk ñu woon a fa am séminaire Kaolack Kolda euh, Kolda boobu temps région Kolda la la Sédhiou bokkoon. en 2004 ah 2004. préfet moom woo ni ko ni ko ni ko wax na ni wax naa ko na dem moom na dem si këram. Hmm. moom mu aar ko mais bu mu leen ci parce kër préfet bi moo ko aaroon préfet ni ma aar na ko ni ko na dem këram mu toog fa xaar ko bu mu dem ci poste yi parce que bu nañ ko fa boom na lañ def ñu manko suñu biir ñu tëj poste bi. ñu ne kon comme que ñoom dañu ñëw di agressé nit ñi parce que dañoo nekk suñu sitting rek ay vaccination ku tëj pass de santé suba di nga tëj hôpital ñu ne dañuy tëj pass bi léegi nag ñu ne duñu nangu kenn ñu affecté ko fa te ku ñu fa naan aussi dañu fexe ba doo fa dem. Hmm. pendant dix mois pass de santé boobu dem bokkul yi la tudd. presque cinquante pour cent des activités du du foofu lañ ko doon réglé. Hmm. ñu tëj ko de janvier deux mille quatre à octobre deux mille deux mille quatre. Hmm. boobu temps professeur Balla Moussa Dafe moom moo ñëw ci ci rajo laay waxee ni moom ma seet si ni moom Balla il faut ñu génn situation yi parce que population yi sonn nañu wax kon mm-hmm. nag ñoom ñoo sonal seen bopp parce que kuy ñëw bàyyi waa këram bàyyi léppam di fanaan guddi ak bëccëg da nga war a fonk mu ne na la ñuy def bu ñu ubbi man ko bu baax nañu waxtaan ak ñooñu lu ñu wax ñu def ko. Mm-hmm. si la ñu ñoom waxtaan la ni moom condition bu ngeen wax d'accord naa si ñoom ñu laaj leen ñu ne noonu dañoo bëgg mooy post bi. ñu defaraat ko parce que toog na fukki weer ubbiwuñ ko ñu peinturaat ko yàqu-yàqu yëpp ñu defar ko. Mm-hmm. pharmacie bi comme que médicament yi presque terminé ñu. Mm-hmm. ñu defaraat pharmacie bi. mais ASC yi fa nekkoon doon fa fortaatu ak as néew dara chaque fin du mois li ñu waroon am yëpp nañ leen ko remboursé ñu ubbi pass bi ñu wax loolu mu ne loolu awma ci problème. Mm-hmm. noonu la ñu ubbee pass santé bi ñu foog nañ loolu bu amee leneen dootu amati. mais gis nga Covid bi bu mu commencé li nga doon wax noonu foofu yanamala ñu dàq leen ñu dàq leen comme comme ay kii genre gendarmerie si boppam moom gendarmerie moom moo intervenir mais pour lan sage femme bi avant sage femme bi sage femme bi boo xam ni kankuran motoom la yoroon di dem région médical ñu kar ko mhm. buntu ma dóor ko ba mu nàcc mhm. lu loolu lu ci yoonam lu ci lu ci yoonam ci kankuran boo xam ne muy dem yoonam mhm. boobu temps aussi porté woon na plainte porté ñu porté plainte léegi maire wu Sédhiou bi Ablaye Diop ñu ngi ko nuyoo pas passage moom ak euh, Ablaye Diouf Sarr ñu ngi ko nuyoo passage mm-hmm. ñoom ñoo waxtaan seen biir ñu ne nañ jéem a fexe ba parce que xale yi dañ leen dañ leen woon dañ fexe ba génn leen ñoom sax def nañ fa beaucoup de manifestations jeunes yaag yu mel noonu mm-hmm. or li ñu nekkoon teguñu ko yoon kankurang kankurang la rek surtout bëccëg ndarkaam looy looy looy looy looy looy gagné koo xam ne dem di liggéeyi mm-hmm. a ah, ñu ne foogoon nañ loolu kii ñu ñu ñu ñu ñu retiré plainte bi fan yële passé mooy keroog bi ñu bi ñu bi ñu bi ñu kiyee ñu ñëw ci guddi googule yow nga ñëw dox boobu vers vingt trois heures amay bopp yu metti ñun la demal ci post de santé bi fii maternité bi la ki nekk ci maternité bi lañ ko opéré ci bët dafa tëdd liggéeyul ñun maternité ñoo fi nekk di korkoral mais nga ko da ngay génn da ngay jóg di ko saaga ndeeg bay ni ko il mu jóg nii même bu buy wàccu deret sax dina jóg mm-hmm. mais loolu fa lañ ko teg mm-hmm. fa ko teg kooku ni man mënumaa jóg ñu ñëw fekk ko ci biir génne di daji daji bunt bi juróomi ponkal di ko dóor mm-hmm. dóor ko ba dóor ko si si bët mm-hmm. biñ ko opéré woon fi mu nekk nii sax mi ngi pour pour seet son ophtalmo la mm-hmm. mais loolu baaba mais fa lañ ko teg mais loolu muy lan hmm? alors que moom nee na leen dama na beneen poste bu bu dee loolu doyu leen ngeen dem foofu mais nan ngay mën a wax da ngay da di ko saaga ak ak ak yu mel noonu bi ñoom def nañ ko fu mu nekk nii Euh, moom it euh, avocat bi mi ngi jël dossier bi di ci liggéey. Mm-hmm. ne yoon tamit dina def lu mu war a def. Mm-hmm. mais loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax. Mm-hmm. fekk na aussi am na benn sage-femme Fadial matul sax ay juróom-benn weer. moom it guddi lañu ñëw bëgg ko doon ko ba pare yóbbu portable am. yaa dégg loolu ñu ngi koy ñaawlu a ay poste de santé yu nga xam ne dañoo toj pharmacie bi di fa wut xaalis mais ku wut xaalis du pharmacie parce que koy wut parce que ñaari dem ñett dem ya fa mais dañ koy jëndewaat médicament pour ko yow mi ñu mën nga accidenté ci bor wala lu mel noonu wala sa mbokk ñu faj ko fa. Mhm. defe naa nit ki war na mën a seexlu. Mhm. passe de santé wala centre de santé di fa di mais nag mhm. comme que ni ñu ci bàmmeel lañ dem def fa def leneen ak sama centre de santé ak passe de santé. Euh, justement Mbalodio Thiam wax ngeen ko dossier yi toujours dañ koy yóbbu euh, devant la justice. <coughs> bu weesoo loolu euh, yàgg ngeen def ay mouvement de soutien arrêt de travail ndax tey jii aussi c'est vrai que dossier bi mu ngi c'est un dossier pendant amu leen yeneen stratégie vraiment yoo xamante ne parce que apparemment euh, li ngeen fi jot a def yëpp n'empêche phénomène bi mu ngi mu ngi perdurer ban stratégie de lutte ngeen war a gën a mettre tey en place pour dire non wala pour dire basta plus jamais ça non amuñu benn amuñu benn benn benn stratégie parce que lu la bett lu la bett mën la mm-hmm. li ñu mën a wax mooy buur yaa fi indi ñooñu fexeel ba wéy seen karange am na ñeneen ñoo xam ni même post de santé ci biir Sédhiou foofu bon na mais dañ foo mësan dañ ko def mës nañ fa rendi chef de poste rendi laaw chef de poste mën ko fa rendi ah yeneen ndax yeneen donc euh, violence bi bari na loolu lu ñu mën mooy ñoom keroog ne woon nañu dañ toog ñetti fan daal di boycotté service yi. Mm. du ñu faj kenn urgence rek la ñuy def te urgence yi aussi duñ ko def ci poste yi dañ ko def centre de santé hôpital. Mm-hmm. mais dañ doon bëgg a marqué le coup. ñoom nag ñu ngi ñuy déglu ñun niveau central. Mm-hmm. ñu ngi ñuy déglu bu baax ñun tamit ñu ngi déglu aussi au niveau de la justice yan développement moo si am wante ñun comme stratégie ngay wax bu ñu continuer noonu mën nañ def comme ni pharmaciens yi defoon parce que am na temps aussi ñi singali pharmaciens yi waaw guddi gi dañ lay fëgg boo génnee ñu ñu rey la wala wala ñu dévaliser la ah, bu fekkee nag mbuur toll na noonu si moom mën nañ toog ba ni service de nuit dootuñu ko defee ci poste de santé yi te xam nga loolu musiba la. parce que hôpitaux dañoo sori ay dëkk yu mel ne ay Tamba yu mel noonu di ngeen def fa ngay nekk ak hôpital bi presque cent kilomètres deux cent kilomètres ay suñu mbokk Fuuta aussi noonu la. Mm. cent bu dee ki war a faj guddi gi nee na man du ma jóg parce que wóorul bu ma jógee di ñaañ may rey la fa la population donc loolu mooy problème bi mën nañ dem ba ni léegi comme que guddi la guddi dootuñu defati dara ku am samalaat da nga taal sa oto yóbbu yóbbu ko hôpital wala wala nga yóbbu ko centre de santé. Mm-hmm. loolu mun na nekk. Mm-hmm. te loolu musiba la. Mm-hmm. Ah, ah, nga am koo xam ne da nga war a accoucher ci ci foofu sage-femme bi man du ma jóg parce que bu ma jógee dañ may rey donc ki nga ki nga ëmb ki ki ki waroon wasin xam nga ci situation la nekk. ñu war ko yóbbu sur cent kilomètres wala est-ce que sax ñoo am nañu sax moyen pour yóbbu ko encore dix kilomètres wala vingt kilomètres après. Mhm. loolu musiba la mhm. mais nit ñi ñoo war a seetaat seen bopp. Mhm. parce que ay nit dong ay doomu adama dong ñooy dem di def yooyu. di fa dem di fa wut xaalis wala di jëm a violer wala di leen a rey. war ñu bàyyi parce que ñoom dañu bàyyi seen njaboot fii. ay Jika yi ngay degg ay Cobra c'est des zones réputées difficiles mhm. d'accès mhm. kenn mënu faa dem ñoom ñu accepté dem foofu yenn saa sax seen père sax dafay dafay traîner mhm. di wëlbatiku nag di di rafetlu liggéeykatu Jika yi leen gërëm ak information de poste ak aussi les forces de l'ordre parce que ñoom aussi ci situation yi lañ nekkee ak récemment waa ISMEA barki démb ñoo ñu seet si ñu ñu leen félicité ñoom tam dañ leen recruté comme ñu de santé yu mel noonu mais DRH ci seen wàll bopp engagement pour régler seen problème mais ñooñu aussi war leen jéem a ci zone difficile yi ñuy nekk fay leen seen xaalis à temps pour que ñu mën a dund mën a jàppale seen waa kër yi tax ñoom ñu dem ci àll bi mm. bi aar leen mhm. ay mënuñoo teg benn gendarme wala benn policier si ginnaaw chef de chef de poste bu nekk wala médecin bu nekk loolu jaaduwul mhm. te événement wu mars yi lañ def kër médecin chef bi lu yoonam ci événement mars ñu dem vandaliser ko a ah, dem ba ci congélateur am yëpp fa nekkoon ñu yóbbu ko fa lañ ko teg ah médecin chef district ba moom ba ñu ñëwee moom ba bëgg a daaj yi bëgg taal da leen bàyyi leen ma ubbi ngeen seet li ngeen def ngeen def ko man ma dem ma dem su ma yoon leen noonu leen mais mais loolu loolu loolu baaba mais mais on est dans quel pays mm-hmm. a ah, dans quel pays mm-hmm. Euh, mbaalo nag du ñu jeexal émission bi donte li ci des bëriwul ci wax ñu lépp lu jëm ci seen euh, revendication syndicale bokk na ci seen i doléance prolongement âge retraite à soixante cinq ans mais tamit da ngeen di sàkku ñu recruter ñi nga xamante ne ñoom ñoo di paramédicaux yi ak sage-femme ak yenn infirmiers yi ndax donte jàng nañu mais mu mel ni seen lim dafa néew loolu ci structure hospitalière yi. waaw loolu dëgg la retraite à soixante cinq ans ñun depuis dañ ko doon wax te loolu sax li taxoon ñu ko wax ko du caage nit ñi dañoo bëgg a toog ci service yi rek ba am ba am juróom benn fukk ak juróom mm-hmm. ak déedéet dañ ko waxoon parce simplement lim bi dafa néew parce que affaire u retraite comme ni ko xamee du caage nu ëpp grade ah wala ëpp xam-xam mm-hmm. affaire retraite liñ naan solidarité intergénérationnelle loolu mooy retraite mm-hmm. yow da ngay nekk di liggéey ñu lay dompal ci sa salaire di ko fa teg pour que boo retraité ñu jox la ko yaa ngi dégg ñi nekk di liggéey dañ leen dompatal pour ñu retraité ñu fay leen yow mm. ëllëg si boo demee retraite dañ la doon dompatale ñu la koy fay ñeneen tamit di cotiser loolu dong la mm-hmm. fekk na nag euh, gouvernement Sénégal pour fonctionnaire yi dafa am système de retraite bu tudd FNR Fonds national de retraite foofu la ñu def xaalis mais nguur nguur rek moo koy moo koy gérer ba tax na nag at yi nga am ak sa solde indiciaire soo demee retraite ñun la lii nga war a mun a am mm-hmm. mu bari mu néew loolu nga mun a am mu bari mu néew. Mhm. loolu moo doon wax bi. ñu ne nag comme que ñu doon cotiser dañoo néew parce que état bi recruté wul cest te fonds bi dafa déficitaire. Mhm. léegi li ñu war a def mooy yokk âge retraite bi pour que bassin de cotisant bi nekk fi ba pare ñu def recrutement massif. pour que déficit yi ñu combler ko loolu moo doon suñu philosophie. Mm-hmm. en 2007. Mm-hmm. gouvernement bi topp ñu ci loolu topp ñu de nit ñi dem retraite ñii di génn système bi ak yu mel noonu ba finalement fi ñeent nit doon nattalee benn nit maanaam quatre pour un dem nañu ba un virgule cinq wala un virgule vingt cinq mooy cotiser pour un est-ce que yaa loolu. Mm. bu ñu demee ba ñeent nit en activité di cotiser benn nit bu ñu demee ba nit ñi di manqué di manqué ba kenn mooy cotiser kenn xam nga finalement dañ danañ xëy daal di. compliqué mm. loolu moo tax ñu def ko. donc moo tax ñu mais état bi aussi bu njëkk ba da ngay école rek dem fonction publique ak sa numéro matricule. Mm-hmm. bu boobaa di nga natt li nga war a nat boo demee retraite di nga am li war am mais léegi état bi da ngay génn école nga wut ay compte contrat taw talaan ba yenn saa nga am juróom ba am fanweeri at ak juróom trente cinq ans. wala quarante ans ñu door la dugal. moo tax nag état bi daal jóg daal di bon comme que médecins yi ak pharmaciens yi seen at yi ñuy jàng dafa dafa sori te bu ñuy dem retraite affaire bi day manqué seen teg yi seen cotisation yi léegi dañ leen di koy dañ leen di yóbbu retraite à soixante cinq ans mm-hmm. mais li gouvernement bi fàtte wax aussi mooy dans les mêmes conditions yeneen catégorie tamit ay trent cinq ans la ñuy duggee. Mm. ñoom it du ñu matal. Mm. donc mënoo sauvegarder kii daay bàyyi ñeneen ñi. dafa mel ni kumba am day ak kumba amul day. loolu mm. jekkul moo tax ñu ne loolu dañ ko war a dañ ko dañu war a démocratiser la retraite. ku nekk nag cotiser li nga xam ni moom nga war a cotiser ñu yemale ko état bi dool li mu war a dolli retraite bi nekk une retraite décente. heureusement loolu maa ngi ko ci yokk fan yi passé directeur des pensions monsieur Diallo maa ngi koy nuyu. Mhm, waaw maa ngi koy nuyu passage woote nañu benn kuréel ñu ngi jëm a saytuwaat fonds national de retraite pour def ko une caisse comme ni IPRES mel parce que réew yi nekk si yi ñu wër yëpp système boobu lañ def mhm. génn nañ ci ci seen fonds boo xam ni état bi rek moo koy gérer moom kot ak ay fonctionnaire mhm. léegi dañuy jóge ci boobu bu baax fonds boobu bu taxawee. ñoom dinañu mën a dugg def ay investissement dinañu mën a dugg dans des capitales de banque xaas bi yooyu dañu mën a am yeneen i yeneen i retombées yoo xam ni mën na duufal retraitu nit ñi nga xam ni ñoo bokk ci si kees boobule. Mm. et loolu ñu ngi koy rafetlu encore. Mm. maintenant li ci des mooy la question du recrutement euh, mënoo toujours di précariser nit ñi. Mm. agent de santé communautaire yi jongi fii heureusement que mairie yi acte trois de la décentralisation. wax na ni mun nañu def commune mooy communalisation intégrale bëgg nañu maire yi ci seen programme yi ñu xam ne xel ni ñoom am nañu droit wu recruter am nañu kattan bi aussi pour recruter. Mm. personnel communautaire yi nekk ci centre de santé parce que santé nañu leen recruter. Mm-hmm. surtout que fonction publique euh, locale xeex nañu ak Sidya Ndiaye ba mu nekk une réalité. Mm-hmm. donc maire yu bees yi ñu leen di invité aussi pour ñu jublu ci bay seen waar si si tool boobu la. Mm-hmm. ah li ci des sax euh, mooy euh, problème mu système de rémunération bi. Ah, mais président la République moo ni woon système bi baaxul parce que da nga gis ñaar ñu génn ci benn école am même diplôme kenn ki fay keneen ki juróomi yoon fukki yoon waaw mm-hmm. ah, mais nag moom bal bi moo ci camp mm-hmm. li tax xale yi nekk ci mbedd mi fan yi mm-hmm. parce que enseignants yi ñooy débrayage parce que ñoom dañoo bëgg ñu régler problème boobu ñun ñëpp soxla ñu ñun ñëpp nag bu ñu nag centrale syndicale yëpp ñooy ñëw def ko li wala fi di wax li li gaañ di wax cooki fin centrale syndicale yëpp dajaloo booloo daal di monsieur le président de la système de rémunération bi wax ñu li nga xam ne mën nañ ko dégg mhm. wala def ci li nga xam ni war na mën war nañ ko mën a jàpp mhm. mais ba léegi système de rémunération bi moom bloqué nañu ñu nag ànd ak ñu ngi lu nag lu bari parce que en dehors système de rémunération yi ñun am nañ ay acquis à ànd ak sëm mhm. loolu ñu ngi ciy kontaan bu baax a baax parce que personnel collectivité territoriale yi depuis époque coloniale mu ci am statut am nañ léegi ba école bi nga xam ne moo war a personnel boobu sax eh, école bi nommé nañ directeur bi conseil des ministres ak président conseil d' administration conseil des ministres bi weesu. président conseil d' administration bi directeur école bi yooyu école bi formé ñooñu. Mm-hmm. léegi aussi ñu ngi leen di laaj seen i pour dugal war leen dugal ci fonds national de retraite mhm. war nañ leen basculer foofu danañ am mobilité maanaam ku nekk ci mairie Ngor suba mën nga dem mairie bu Fuuta wala beneen mairie nga liggéey fa loolu la ñuy wax mobilité horizontale mhm. loolu ñu koy rafetlu techniciens supérieurs yi au mois de février ou plus tard seen formation dina commencer mhm. bu ñu leen capacité dañ leen dugg hiérarchie A2 suba mën nañ nekk directeur lu nekk loolu amul woon grade bi gënoon kawe ci sage-femme pour infirmier moo doon technicien supérieur. Mm. te B b la woon. B2 la woon du woon sax B1 B2 la woon mm. léegi mun nañ dem A2 bokk la neexee nga dem mm. mille francs la woon depuis mille neuf à partir de janvier bi donc mu nekk ay yoo xam ne ñu ngi koy rafetlu parce que mënuñu naan c'est pas normal je ne d'accord mais am loo xam ne bu fekkee bon affaire u namora Euh, monsieur le président de la République jël décision bu am solo. Mhm. jox nañu cent quatre hectares. ministre de l'habitat créé na benn commission moo xam ni ci laa bokk gouverneur Dakar moom moo koy présider ak yeneen techniques direction yëpp. Mhm. pour que affaire pour dagg affaire Namora. Mhm. ak les ACLA les terrains d'habitation pour les camps pour les pour les pour les pour les syndicats. donc ñu lijjanti loolu. loolu aussi ñu koy rafetlu bu baax a baax. li ñu bëggoon nag mooy Abdoulaye Diouf Sarr signé bi. lu mu gën a parce que comme que d'accord nañ ci lépp. dañuy woote pour signer ko moo taxoon sax si camarade bi def déplacement bi pour loolu. Mm. mais xëy na buñ ko deful tey aussi après élection bi. Mm. danañ ko signer waaye li am solo mooy liñ d'accordoon d'accord nañ ci d'accord nañ ci ba pare. Euh, di gërëm directeur de ressources humaines aussi parce que bay na ci waaram. Mm-hmm. parce que euh, foogoon nañ ni affaire bi du mën a gaawee noonu surtout pour techniciens supérieurs yi. Mm-hmm. ak assistant infirmiers yi nga xam ni seen dossier ak aides sociaux yi seen dossier mi ngi avancé ak yeneen corporation yi. Mm-hmm. Euh, waxtaan wi am na solo lool mais li ñu naan lu duuf ci nag li xajul ci cin bi di ñu coraloon ci waxtu wi yegg nañ ca Mballo Thiam euh, sa kàddu gu mujj. waaw sama kàddu gu mujj mooy euh, di rafetlu suñu jotaay bi di yaakaar ni liñ fi wax yëpp am nañu njariñ te ñun du ñu waxantu du ñu du ñu defantu euh, di ñaan euh, camarades yi ñu gën a farlu si liggéey bi. Mm-hmm. parce que li ñu leen wax mooy soyez les meilleurs ou parmi les meilleurs. Mm-hmm. bëgg nañu daal nit ñi dootu ñu ñaxtu ay mauvais accueil ak yu mel noonu ku ci nekk euh, am na ci sa part de responsabilité ñu wax aussi gouvernement bi aussi ñu ñaax ko ni ko santé amul amul coût mais am na prix quand Euh, ba tax na nag euh, mu yokk jumtuwaay hôpitaux yi nekk dans les régions mënutuñu am subvention yi am yu ndaw mhm. parce que mënoo am quarante hôpitaux yu mag a mag a mag a mag a ba pare nga leen di jox onze milliards pour seen fonctionnement ak mhm. mu nekk mhm. euh, li ci des yëpp lépp lu leen manqué mu jóge ci poste maladie wala poste population yi loolu gouvernement war na ci yokk action sociale waxuñu si lu bëri waaye bëgg nañu aussi ñu ñu handicapé yi ñu fexe ba centre de CPRS yi. Mhm. ñu tabaxaat ay CPRS benn hôpital. quatre milliards vingt milliards cinq milliards quinze milliards mais CPRS matul cent millions te te département bu nekk mën na am mën na am CPRS mhm. même bu dee quarante six wala quarante sept département nu mën a mel matul cinq milliards mhm. bu nekk am CPRS centre de promotion et de réinsertion sociale yow régler problème mu travailleurs sociaux yi parce que mënoo nit mun la yaakaar ba pare bu ñëwee ci yow nga nga woon ko ni yaa yaa gën a soxla ndimbal. Mm-hmm. loolu war na mën a dakk ak carte d'égalité des chances que handicapés yi am ensuite quinze pour cent fonction publique ñu recruter leen dans la fonction publique mm-hmm. jox leen un fonds comme li ñuy wax fonds banque pour projet bu handicapé am projet bancable ñu financer ko pour que nga bañ a yalwaan parce que mendicité bi lu ko indi mooy ñàkk koom mais boo amee projet bu dëgër ñu financé la ko defe naa ne ñaan moo gën a métti tàllal loxo dafa métti lool bu boobaa ñoom du ñu tàllal loxo danañu am xam ni xel ni loi d'orientation sociale amala leen njëriñ mm-hmm. donc ñu béral ko di ñaa leen ñaax nag aussi ñu voté aussi la loi orientation familiale mm-hmm. parce que problème mu avortement yi inceste viol yàgg yu mel noonu yëpp si biir kër yi lañ ko woon a mën a régler wane ni famille bi mooy le creuset de réflexion creuset d'éducation creuset de formation creuset de valeur mooy la famille ñu delluwaat ci famille bi mhm. xam ne xel ne ci famille bi la ñuy defaree yëpp mhm. si famille bi tamit la lépp di yàqoo nekk ni mhm. donc loolu laa moon daal lu ma si yokk ci gàttal yaakaar ni daal yëpp danañ ma jégal bu fekkee wax naa lu nga xam ne war ñu ko woon <laughs> sant ko gërëm ko moom mi nga xamante ne moom moo nekkoon tey suñu invité suñu ci suñu émission bi di SOS santé moom Mballo Dia Thiam nekk euh, président bu alliance des syndicats autonomes du secteur de la santé ñu gën ko xam ci ànd gësëm waaye tamit nekk li nga xamante ne moom mooy secretaire général bu SUTSAS fàttali ne yéen ngi doon teewlu seen émission bi di SOS. santé eh, Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Léopold Mendy nekkoon ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen émission ak beneen invité